yàlla mi tax ñuy jóg ko yëngoo ko tëdd ko neloo ko jullee ko woor ko ñaan maam yàlla maa ngi lay siyaar di la bëgg di la bëgg xam naa ne sax xam nga sama lépp nag waaye maanaam dafa am ñu fi ñu nekk yenn saa yi di ma xulle ngandi bët ak di ma déglu te xamuñu fu ma ne ci yow laa yaa tax a takk di jóg yaa ma tax di noyyi yow laay kennal yow laa bëgg yow laay dund yaay sama indépendance yaay sama jàmm man yaay sama fit yaay sama doole puissance yow yaa tax maanaam. ku ma mënta jaar ci kawam amul yow yaa tax man ku ma mënta fiir amul yow yaa tax dund ma kenn ko dul yow ndax keneen koo fi dund erreur la ndax booy bàyyee sa bopp bàyyi ñëpp bàyyee sa bopp yàlla yaay kii dund dund ku neex waaye ki bàyyi sa bopp bàyyi yàlla di dund keneen la ngay dund ce n'est dund gi ngay dund c'est dangereux lan mooy ay bind lan mooy ay papier lan mooy indépendance nanu liggéey jaamu yàlla te fit am fulla te bàyyi déglu sax waxu seytaane waxu dëmm ak waxu nooxoor man looloo ma tax a ñëw de kenn du sant rek indépendance bi gëmuma ko dunduma ko ba moo dund ay kayit man faalewuma leen système nasaraan bi ak seeni bagaas man maa ngi ci ñoom fii seen biir di leen woon système maam Cheikh Ibra ñuy jummi man maay fekk nasaraan yi teg seen loi ba pare ma ñëw dëndi ko ñu naan ma lii la man leen je m'en moom jaan yéen moom allemand yi seen kayit yi ngeen toog seen bureau yi di bind wool ma sa chef ñu waxul leen ñu wax man leen eh, faal man ko dul maam dunduma la fii ku tàppet doo eh, ana yàmbari tàppet yi bu nee la takkal jóg ngay lox di tiit di wut ñu la sotle da ngay doon cantal naan man sa boor romb gaynde di woote jàmm di wax jàmm boo dee jotee sax nga jóg yow dem dee bañ cee rey neneen benn néew moo gën fukki néew bu leen ñu rey naraan jub xooj xooj xooj dañuy wax dëgg di dund dëgg am fulla am fayda ay saagay ndey wala wax ju ñaaw bu ñu teree dund suñu dëkk bu ñu teree dund ci yàlla ji nekk ci yàlla ji ndax ku fi toog ni nuppi nuppi ba egg ba ëllëg nga <laughs> la ni nga naan non damaa bañ a ñu xale yu réew ay mag yu di la menacer di la def ni di la saagay ndey barke laa ilaha illallah ku fi toog li nga war a def defoo ko ba ëllëg li nga war a wax waxoo ko ba ëllëg ngay yambar yambaru di yappar yappare ba ne la noot nga naan noonu c'est que gars yi ñoo ñëw di napp nañu di saaga nañu réew xamadi Sénégal rëy moo tax duñu wax dëgg bañ ku leen saaga ndey moo tax duñu wax dëgg man nag waxal yàlla nekkal yàlla liggéey jaamu yàlla dund suñu borom waxuma la saaga ndey saaga ndey ce ndey ce may taxaw di liggéeyal yàlla di kennal yàlla di wax ci yàlla jaam ñu wër ma di ma sànni xeer du ma dóori jaasi du ma fayu te du ma bàyyi te damay gën a yokk faal dund ma àdduna bi àdduna taxul may wax intéressé wun ma seen système bi dund ma ko dund mu muy sunu borom te dama koy dund fii ma nekk ak yéen kon duma fi nekk di dund ak yéen ay politique di dund di parparloo dund seytaane dund pour taal dëkk bi indi Sénégal guerre Sénégal la fa nekk lépp guerre ngeen fa bëgg a indi ñun bëgguñu kontaanuñu sunu xel ci zaahirement dalut baatinmaa na ni waxee ndax suñu xel ci baatinmaa dafa dal ndax Ahmadou yàlla mii kenn waaye zaahirement yéen a ngi ci lëndëm gu doy waar yéen a ngi ci danger bu doy waar yërëm naa xale yi yërëm naa jeunes yi yërëm naa jigéen yi yërëm naa xale yi tuuti yee tuuti yee tuuti yéen a ngi naan xeex vague di wax waxu seytaane est ce que sóor ngeen seen ngi nday yi màgget yi sóor ngeen seen maam yi màgget yi est que sóor ngeen xale yu ndaw yi mënta doxi xale liir buy doog a judd xalaat ngeen liir buy doog a judd di dégg ay tël tël est ce que ñi leen tax di dee est ce que am na seen benn mbokk bu ci gaañu ñëw leen ñuy cuujoo maam Cheikh Ibra moom mooy dëgg ñii li leen di wax dara du ci dëgg ndax nekkuñu ci dëgg dunduñu ci dëgg seeg li ñuy dund du dëgg ndax politique du dëgg te dëgërul wérul wóorul man mii sax bu ma doonoon président dinaa ñam man mii sax bu ma doonoon président damay ñam damay mus kon li ñuy wax dara du ci dëgg bu doonoon kan dinaa doon président yor lu bëri na damay ñam sénégalais laa dama leen di wax dëgg bu ma doonoon président damay ñam moo tax duma doon président te bëgguma koo doon ku ko fi doon danga koy ñam bu ñu fontoo bu nu fuulaape ba pare ñu dund Ahmadu ngeen may nit ñi jàmm ay doomu aadama képp ngeen ku fi tëll yàlla moo lay rajaxe yar la rukk la ba nga nooy népp yàlla mii kenn yéen la tapet yambar doo leen wax dëgg doo leen dund dëgg ku kii nan saaga ndey waaye yow dama ne leen boo leen ñëwee ñu taal leen fii maam Bamba moo fi ne maam Seera Fall maam yàlla point liggéey jaamu yàlla gëmu gëm doyloo sunu boroom ku dul yàlla dunduma la doyloowuma la gëmuma la taana sëy ngeen doon tarda ngeen trop kenn du doy ngeen naan da ngeen di 4 ma maam Bamba numéro 4 nan wax na raay jub xocc ku dul maam dunduñu la activiste bu maam yàllaa ngeen bu fekkee day wax activiste man damaa romb activiste tey ci fajar la ma sama borom def activateur ah je activateur ku fi active dama lay activé ku mu ma ma déteste eh, dama lay désactivé lu mu koy laakatee sax damay activé di désactivé. téléphone bu fi bloqué mën naa ko débloqué mën naa toog fu ma toog di bloqué di def di dindi lu kenn dul dindi bokk ma ak actif actif bu fi actif rek activiste bu fi actif rek maa lay activé te ko fi déconné ma désactivé la lu leer laa leen di tegal wa maam yàlla laa leen di tegal de tegaluma leen waxul nit waxu politique waxu système. cuujoo leen maam yàlla maam Bamba maam Seera Fall liggéey jaamu yàlla bëgg sa bopp gëm sa bopp may sa bopp indépendance mooy nangul sëriñ Touba Ahmadou gëm ko di ko dund di ko doyloo bañ koo boole kenn ak lenn ku dul maam dund ma la faalewu ma la yëgu ma la man yàllaahu moo ma ñor. yàlla du nit du sëriñ du yonante kulluxum moo leen moom yónni leen fi te ñëpp dëkk ñëpp nekk fi ku mu neex ku mu naqari damaa bokk ci ñu koy waxal fii mu neex leen mu naqari leen ku tëll ma radaxe la rang yi day jub xocc jàmm ak salaam doo na ngi de ku tellu mag eh na rang